Rewmi 24 TV defon nañu len bu baax ci and bi ngeen and ak sen site internet bi di rewmi 24 TV li gën fess ci bopp xabar yi nak dañ koy do rek eh, jëwlin bu yes bi nga xamantene rek mom mo nek ci chef bu cabinet di woy tour pap madando dal di nay wax nak li nga xamantene rek mom la bëgg ci bop nguur gi ginnaw nomination bi nga xamantene rek def nañ ko ko mom monsieur pap madando dal di nay fasiyene assumer lepp lo xamantene rek rôle la ñeel administration présidentielle mom mi nga xamantene rek chef de l'état bi di Bassirou jomay jaxer fay mom moko dal di tabb ginnaaw rek bu mu gisee ne rek ci ab dogal bu am solo la daal di nommé kii di Pape Mada Ndour ci poste des ministres bu chef de cabinet du président de la république bu ñu sukkandikoo ci capture yi waaye nag li nga xamante ne rek moom moo ñeel boobu les nomination daal dinañ koy jaarale nag ci ab décret boo xamante ne rek 2024 992 buy wane nag lépp loo xamante ne rek dafa ñeel composition boobu les gouvernement kii di monsieur Pape Mada Ndour nag fas yéene naa lépp loo xamante ne rek loolu la ñeel administration élection présidentielle bokk ci lépp loo xamante ne rek day doxal nag affaire étatique jaarale ko ci boobu le décret ginnaaw nomination bi nga xamante ne rek dal nañ ko koy def ak yeneen membre ci gouvernement bi ngir mu veiller lépp loo xamante ne rek application bu am solo la ci décision bi nga xamante ne rek dal nañ koy dugal ci vigueur niki 30 avril 2024 nga xamante ne rek day wane nag tànneef stratégie bi nga xamante ne président dal dina koy am ñeel engagement yi ak gouvernance lépp rek ci efficacité waaye nag ci ab eh, jubal bu ñu jógee foofu nag dañuy addu rek indi ay leeral eh, ci coow li nga xamante ne rek moom moo ñeel eh, terrain yi APR ak yi nga xamante ne rek yu dem dikk lañ ci yooyu projecteur bu ñu sukkandikoo ci rapport cour de comptes daal dinay indi nag ay leeral ñeel scandale yi nga xamante ne rek nemmeeku nañ ko nag ci yooyu terrain ginnaaw Dakar dem dikk ba tey rapport ba nag la mu daal di xam ne nee na am na ay manquement yu bari yoo xamante ne rek nemmeeku nañ ca jot na nag ñu daal di ci indi ay leeral ginnaaw rek bi ñu xoolee le affaire càmbar ko ba noppi. nañ nak ca wet ga ñi nga xamantene mom mo nek terrain yu Dakar dem dik yi ak yi nga xamantene rek wa APR ñom ñoko daldi mom daldi nañu fessel nak bobu les rapports ci ab publication spéciale nak lañu ko dippé niki nak li nga xamantene mom mo concerné ci atu 2017 japp 2020 ñu fat leen bobu les rapports nak daldi nay indi ay leral waye nak won na nak na amna ay manquement yu doy war ak ay lëndëm lëndëm yo xamantene rek mënga ca ndax li nga xamantene mom mo ñeel yoy les kër nga xamantene dañ ko Dans ci cadre projet de mise en valeur de la façade ouest du dépôt de Wakam 6 sur l'avenue Cheikh Anta Diop nous ñu sukkandikoo ci rapport boobu nee nañ Dakar dem dikk jot na joxe lu toll ci ay droit de bailleur lu toll ci ay terrain yoo xamante ne kenn tabaxul ko ñu toll ci huit cent huit mille mètres carrés yi nga xamante ne rek moom moo motivé yenn ci ay recherche yoo xamante ne rek dafa ñeel ressource financière ngir tontu nag jafe wala sax soxla investissement yi nga xamante ne entreprise yi daal dina koy am ci ab rapport bi nga xamante ne rek daal dinañ koy wane nee nañ nag terrain yooyu nag ñu daal di woon établir lu toll ci six cent mille francs CFA les mètres carrés bi di jàpp mu nekk rapport bu. doy waar ñeel immobilière bi nga xamante ne rek date na nit ki 18 novembre 2015 ci mbir mu nu mel nag am na ci ay kër yoo xamante ne yu bëri rek dañ koo dal jaaye ko nag ci njëg yoo xamante ne njëg yu tuuti lay doon mu nekk mbir moo xamante ne rek yenn ci kër yi ne APR ci jëmee boppam rek ñoom ñoo ko dal di moom waaye nag ñu doon def paiement bi ci anam bu leen neex defuñu ko par ay espèces waaye dañoo violer lépp loo xamante ne rek légal la amul woon benn yoo euh, teewaay ki nga xamante ne rek ñoom ñooy ay comptable ñu leen neex daal lañ ko doon fayee ci mbir mu nu mel am na ci yeneen transaction yoo xamante ne rek ñoom ñoo ko enregistré waaye du comptable moo ko enregistré du ab notaire ci fay gi tamit ñu leen neex lañ ko doon fayee sans teewaayu comptable wala ak notaire ñu fàttali nag ki fi nekkoon ancien directeur général bu Dakar dem dikk di woy turu maître Moussa Diop moom ci jëmi boppam rek daal dinañ koy laaj ci yooyu les questions ginnaaw explication bi nga xamante ne rek defoon nañ ko ca mel nañ ni rek amuluñ ko woon fulla waral rek mu nekk actualité waaye rapport expertise immobilière bi nag daal dinay dëggal que ne nag dañ doon fay yooyu les kër sans présence comptabilité ak notaire mbir mu nu mel day wane na rek lii di confiance bu rëy bi nga xamante ne rek amoon nañ ko ci APR ci mbir mu nu mel am na ay yeneen révélation yu gën a doy waar yi nga xamante ne rek daal dinañ ci indi ay leeral ñeel bor bi nga xamante ne Dakar dem dikk daal dina koy am mu toll nag euh, ci cent un milliard sept cent dix millions cinq cent quarante sept mille euh, quatorze francs ni ki 31 décembre 2020 mbir mu nu mel mu nekk menace bu sérieux boo xamante ne rek jamono ji boobulee entreprise mu ngi koy dundee yeneen yeneen yi nga xamante ne rek jaarul yoon nemmeeku nañ ci comme yu ñu signalé muy ay transactions yi nga xamante ne doon nañ ko def ak ay fournisseurs sans nag présence yu NINEA ak ay dépenses yoo xamante ne nag kenn xamul rek euh, fan lañ koy yóbbu mu nekk ci ay millions de francs CFA ci mbir mu nu mel nag ñu ci bëri rek jamono yi accusé nañ ki nga xamante ne moo fi nekkoon ancien directeur général bu Dakar dem dikki woo ci turu maître Moussa Diop mbir mu nu mel nag waral ñu convoqué presse bi rek ngir mu daldi ci addu ci nu mu gën a gaawee ndax coow lu nu mer nag da euh, nar naa jur ay questions yoo xamante ne rek doy waar la yoo xamante ne rek soxla soxla nañu xam kon transaction immobilière yi nga xamante rek dafa daal di laal li nga xamante ne moom mooy entité publique yi ba jamono jii daal dinay jur njàqare gu rëy ci anam bi nga xamante ne rek la ñu roy woon yooyu les koppar ak entreprise publique yi nga xamante ne rek Sénégal ñoom ñoo ko daal di moom jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir mën a am yeneen xibaar